waaw gis nga xam nga lii carnage la. Hmm. carnage li bindu mag ñi la. carnage bi maam El Hadj Abdoulaye Niass moo ko moom mooy loo xam ne ay sekkereem la. Hmm. ñu defar ko képp koo xam ne da ngaa nekk lew nañu seen ba am vingt cinq ans. Hmm. sa waajur dana la oo ci néeg ne la diw nga ne waaw jamono yàqu na de ñun lii la xamee mooy baatin. ne la baatin nag yemoo wut ak bëtu neen. baatin yemoo ne la suñ lépp nag. suñ cartable ni ko patron yi defee di xëy di tee seen cartable liggéey ñun suñ cartable a ngi lii nag sa maam bawul dara bawul ku bëgg kayit bawul ku bëgg boole ay nit bawul ku bëgg place bawul ku jabet bawul ku tension bawul ku hémorroïde bawul ballottement bawul mbooleem feebar ak mbooleem soxla bawul ko mi ngi fii nee nag am na fi luy yàq am na fi luy defar mm-hmm. waaye liy yàq jim koo xam denc waaye bu ko xam fayantoo liy defar jim koo xam defar ci nit ñi. Mm-hmm. ndax defar benn nit moo gën a foor tabax junney jàkk. Mm-hmm. li la suñu waajur yi wax de. ba pare ne la bismillah. teg téere bi àllarba laa laa commencé jàng lii sama waajur du ma ko fàtte mukk ba laa ko commencé jàng mu ne ma bismillah teg ma teg ma demal nga ut mburu juróom-ñaari mi mburu nga indi. moo juróom-ñaari mbis mu indi comme kuy dal jàng bees ah. Mhm. dama la indi biscuit indi ma indi biscuit indi mu ubbi teg. dama bisimilah yëkkati loxoom bu tedd ba teg sama bopp bi dama lépp lu nekk ci sama loxo bi mu jëlee ko ci sama baay Alaaji Babacar mu jëlee ko ci Xalifa Ñas mu jëlee ko ci Alaaji Abdoulaye Ñas mi bàyyi Baay Ñas ak maam Xalifa Ñas yàlla sottee ko ci yow. tëfli ne bisimilah buntu buñ toll nga ne al awal buntu bu jiitu mu ne la lii ay buntu la. Mhm. mu ne lii mi ngi jàngale noog ñaari nit ñu bëggante nii la ñu daggee xawaatim bi xawaatim bi nii nii lay duggee nii ak ni ak nii waaye lii amul solo ubal nga ub mu ne ngil koy tabax nga indi muy dagg xawaatim di la woon ni muy duggee ni muy dammee ni muy yàqoo boo dugalee xawaatim ban mooy njëkk a dugg hmm. ban ngay mujjee dugal ban nga ciy tegaat ban nga ciy nangam nooy xade dee tour nooy wàññee nooy yokkee nooy xisaabee boo manee foofu nag ngeen commencé dugg ci carnage li mooy carnage kii nag mooy faj soxlay jaam ñëpp jàngat goo gis hmm. ñu koy joxe ci internet yi mu yéem nit ñi luñ fi joxe ñu ne lii lu wér la gis nga kii nii maam nit jóge na ba Abidjan Côte d'Ivoire Idrissa may dégg. Mhm. weexal ma téeméeri junni pour mu bi sama woy junni ma mukk lii ndono la ci koor gi maa dem ne ko ah fan yii jamono dafa naqadi te Covid lañ jóge dafa am secret yu ma bëggoon julli fii di ko may nit ñi ñu koy lancé. Mhm. mu ne ma bu mu nekk ndëxëñu lew na ñeseen nag. waaye bu dee lu aar ñëpp la nag sama yoon ñëw ci. Mm-hmm. ndax lew nañu seen mooy lan. président nee dañu duñ ziare ku ëpp réew mi. kilifa diine yi bul ne kenn. Mm-hmm. kilifa diine yi ñoo ko ëpp doole. ndax li leen seen maam bàyyil maam bàyyiwul bàyyiwul. Mm-hmm. parce que ñun ñoo ko fal te ñun suñuy maam mooñ ñooñ fal. dégg nga wax ji. président ziara dana am ziara du am ñun ñu ne ziara dana am. fu ñu ko tegoon fii. fii kese lañ ko tegoon. teguñ ko woon fenn ah xalifa bi oote commission. ne ku am karnaasu maamalaaji bi ñëpp ku ci am ne ma ngi nii am na am naa génne leen buntu nangam ñu génne foq di dina commencé ñu ñu commencé tabat na commencé ñu commencé na fii lii commencé mu commencé buñ paree nag dugg ci tur tur yu mag yi mooy mu neex mu naqad dana am mu neex mu naqad day am loolu de mooy sarax ndongo daara mbaa mu jël boppam. dañoo jëlal suñu bopp fu xarti mu koy neex ak mu koy naqar te mënu ci dara loolu mooy maanaam borom caq. Hmm. lu xeex ak borom baatu neen. waaw ñun suñu maam ràngal ñu ay caq ay garaat ah sëñ Muntaxa. Hmm. fam newoon fam newoon dix ans ci gannaaw ku ko xamoon bariwul. Hmm. ba soobee sëñ Touba da ko indi àdduna bi yëpp xam ko. Serigne Cheikh Diagne Khalifa Niass mi wax tey. ku ko xamoon bëriwul te mm-hmm. jumaa ji rek la mm-hmm. te te te kur sama alxuraanam mm-hmm. ba mu soobee yàlla da koo indi ñëpp xam ko àdduna noonu lay tëddee sama am lim la fi bàyyil bu jotee rek yàlla indi la parce que yàlla yàlla yàlla du jëlee fi sàmm fay ko dem ba mukk jamais de la vie loolu moo fi nekk rek pour wax la li ñu fajee soxlay jaam yëpp ci lii la nekk waaye nag ñun ñu naqadee jot lañ ku yàlla dimbale rek moo mën a jëflante ak ñun waaw mhm. ku yàlla dimbali waaye soxla bu nit am ak feebar bu nit am ba mu jaaxal ko billaahi wallaahi watalaay ak koor gi ñu jëflante ci sérieux waxtaan mu fonk kàddu ma fonk sama kàddu su faju na taxaw fu ko neex ne waxul dëgg sa ñëw tuuti ci wàllub làmb ndax xam naa ne làmb waxoon nga sax doo ci wax waaye lu mu ta ñàkk la muy euh, ñi nga xamante ni euh, tey gis nga actuellement saison làmb ji ubbi na bari na ci ay mbër yoo xamante ni jël nañ avance gannaaw loolu sax dañuy njëkkee ci combat Eumeu Sène Lac de Guiers 2 combat bu weesu la mu am loo ma waxoon fii ma ñëw fii nga ni ma Eumeu Sène actuellement moo jekk komba bi ñu dem ba ci biir gis ni Lac de Guiers numéro 2 mujjee naa jekk combat bi arbitre sifflé na bëri nañ bëre boobu ñu façon am bëre ba Lac de am ci ndab ban taxawaay nga ci am ban gis-gis. waaw gis-gis mu ma ci am mooy li daan wax bu njëkk rek inna allaha yaalamu xayba samawati wal ard mhm. li injusté gut sëñ Cheikh di ci wax mais di wa jëkku waale mhm. ku ne sañ nga koo wax mhm. euh, te bi ma koy wax it géejawaay laa dëkk fii fii laa koy waxee am na ku bokk ci staffu la de guerre ma tudd turam mu ma fekk ci zaawiya maam El Hadj Abdoulaye Niass ay 17 heures 18 heures heure boobu la ma woo ma ne ma sëñ maa ngi lay woo dem ba jotuma la ma ne ko dëgg la de maa ngi jégalu ku ku yor cinq téléphone wala quatre téléphone daanaka doo xamat sa foo leen teg jot bi rek waaye ku am chance ba jot ma de bismillah mu ne ma mën na ci staff la de guerre bi laa bokk mhm. Balla Gaye ba muy bëreeg Yékini mhm. sa maam Alaaji Ibrahima dem nañ fu ne mu të mhm. moo ko ñaanaloon yàlla ba duubalee sëkkati la mu yëkkati jox mu ne ko bu neexee yàlla dem leen kenn mën na tere mu daan mu ne ko loolu nag laa bëgg nga dimbale ñu ci te yàlla tax Lac de Guiers ba muy bëri Papa Sow it ñëwoon nañ fa. Hmm. damaa gis nga am loo wax ci chute. Hmm. te xam naa ne ak loolu loolu na lu am la. Hmm. ma ne ko ah, ngeen jóg rek ñaan lu yàlla rek mu ne ma ci lañ nekk nii. mu ne ma ci lañ nekk nii ma ne ko maa ngi ci xabru ah, ñu ñaan ci xabru bi rek mu ne ma dimbale ma ngir yàlla def téléphone bi may livre ma def téléphone bi may livre moom ci boppam waa wax de. mun ne mu ne Khalifa Niass mu ne après mu ne ma la tudd ma ne ko mooy papa El Hadj Ibrahima mi leen ñaaloon papa Sid Lamine Niass mu ne Khalifa Niass ndam lañ bëgg ak nuñ ko mën a hmm. lii la wax rek coupé barke Cheikhou Tidiane. billahi wallahi watallahi mu combat bi des ñett fan ma tëdd gis la de guerre ci kaw montagne bu kawe ama seen ci suuf montagne bi. Hmm. la de ngi téye benn drapeau vert son rouge du ko def nii ma yeew am ñu ma wax. ku ñuy wax Makhtar Niass. Mm-hmm. ko ah, ma waa ma ko yow de wëlbatiku na sama waa ji dana dana daan Eumeu Sène de fekk man jabaru Eumeu xaritu jabaru mm-hmm. ma ma ne ko ah nga xanaa ma fanaanoo ko ma fanaanoo ko wax ko saraxe mën naa ko wax sax da ne ko nañ peese kilo suñ mënta am soo na ma loolu dafa difficile man dama ko bëgg am kilo nga laaj ñaata at am nga génneel ko ci ay sa ndox. Mhm. dana mujj ci jàmm. kooku def lool fa la alhamdu beneen bi mooy xam-xam am na waaye dañ koo sàkkuwut ñu ko sàkkuwut mooy ñi ko bëgg. Mhm. ndax ñun bu ko bëggee dañoo génn ci réew mi dem sàkku jikko mbër dama noonu duma ci wax mais danaa leen laajee biir tuuti. Mhm. ñaar ñi souvent ku ci màgget rek. sëg mujj dana xaw a métti tuuti. kan ak kan muy mbër ak artiste. lu tax loolu. merci saafara. Mhm. gàllaaj kortu yi ñu lay sànni ak yi ngay sànniwaat. Mhm. soo màggatee talatoo dem fa daan dem pour ñu la koy defal. Mhm. yëppay ci sa kaw. moo xam ci tànk yi la wala feebar la lay def loo mën a jógati walla nangam gëstu leen li may wax rek. dëgg la. gëstu leen artiste nag bàyyiwul kenn théâtre kat beeg nangam beeg yëpp ci am. bu màggatee souvent rek da nga koy yërëm parce que dana feebar feebar yu ñàkk fayda ñoo xam ne yi ko daan nit ñi def muy bañ a jàpp su màggatee bàyyandiku jàpp ne nit ñi pare nañ ci moom pareekuñ ci moom wala yooyu mooy ñëw mhm. parce que korte mën naa tag ci jaww ji 41 jours bu 41 jours yi passé mu demaat 41 ans 41 ans mu demaat ko toog soo bàyyandikoo defaatoo ci sa yaram rek mu ñëw luy tag la rek mhm. pour wax la loolu dafay dafay am ci ñoom beneen bi mbër danay jóge këram té victoire. Mhm. nii gis naa ko ci ay mbër yu bari fii danay jóge ci këram té victoire nii ci diggante muy àgg ak esaat ba dañ koy foqarte am na ñoo xam ne ci biir géew bi lañ koy foqartee. Mhm. am na ñoo xam ne dañ lay wax ne la mën nañ laa fasal diw ay loxo wala mën nañ laa fasal ay tàkkul nangam waaye fas bi du yàq gis nga ko fi mbër yu bari seen bëri du yàgg bu arbitre sifle ñu ñëw. Mm. parce que dañ naan la fas bi du yàgg bu yàggee rek day bàyyi parce que wuñu poqe lañ koy fasee. wuñu poqe. wuñu poqe lañ koy fasee am na ñoo xam ne dañ lay frigo. Mm-hmm. waaw dañ lay frigo dégg nga wax ji. Mm-hmm. am na yoo xam ne kalimatullaahi ulyaa la comme exemple booy xool la dëgër seen bi combat bi demee bay bëgg kii la dëgër yëkkati na benn bitel bu weex nii ci kaw. Mm-hmm. teeku lu yàgg. du ma ne moom la nag waaye noonu lañ koy defee. Mhm. ñun bu la ko defalee noonu lañ koy defee. kalimatullahi ulya bu ñu ko defee pare jox la ko da nga ko yëkkati ci asamaan si ba yàlla gis ko. Mhm. da nga ko yëkkati lu tolloog une minute ba yàlla gis ko nga soog di ko xappoo ba mu xaaj nga yëkkatiwaat ko xappoo waat ko kooku doo am defet mukk ci jour boobu. am na boo xam ne laa yaddullah fawqa aydihim lañ koy defee. Mhm. yaddullah fawqa aydihim googu. dañ koy defee ci 66 puso ak 66 dëju sump mu hmm. jàpp allahu allahu 66 la mooy lillaahi rek allahu mooy seul tur yàlla boo xam ne foo dagg tur des fa hmm. allahu boo daggee lillaahi tur yàlla nga fa boo daggee boo daggaatee liif mu des lahu mm-hmm. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tur yàlla nga fa boo mm-hmm. daggee ñetti liif mu des huwal lawalu wal aaxiru wa zaahir wal baatin moom rek mooy tur boo xam ne boo ko daggee rek tur des fa mais sëñ bi actuellement fi mu toll nii ci wàllu mystique fi mu toll ci làmb gis nga mbëri ni ñu favoriser mystique nga jàpp ni ci mbëri actuellement ak xam-xam bi la suñu borom may ni nga leen di gisee ak seen décor ak seen mystique yi ñuy utiliser kan moo ci ëpp gàllaaj xaw ma ko waaye xam naa ñàkk fay da weesuwul hmm. ñu fay la te xaw ma ñaata fay ma ñaata 40 million jeex na nga xulle ba ba <laughs> bañ jàpp la cest à loolu lu koy waral nag mooy dañu dem ci sëriñu sañ-sañ yi te te duñ dem ci sëriñu sañ-sañ yi dégg nga wax bi. Hmm. dañuy hmm. hmm. dem ci sëruñu sañ-sañ yi. mooy ñu mel ni man sañ rek. te dem ci sëruñu sañ-sañ yi. yaa ngi nëbb sa bopp de. waaw parce que <laughs> loolu dara. ayca kon dem ci sëruñu sañ-sañ yi. sañ-sañ mooy na am am du am du am. dégg wax ci parce que yàlla fa mu ne kun néew fa di kun kuni. kum def kunit doo kun kuni da ngay kun mu am. tey ñëw nga ci benn sañ Cheikh weexal ko un million. kee dem na weexal cent mille cent mille gën sa un million yow. parce que ca kam dem la. Mhm. ca lañ ko defal la. ca kam jëflanteeg la. Mhm. dëgg la nag damay gis ñu bari ni wax lépp ci loxo yàlla lépp ci loxo yàlla ne waaye yàlla yàlla bay sa tool ah. mhm. yàlla na yàlla bay sa tool Mohamed Ndao Tyson bi ba mu fi nekkee di daan ah, daan ñaanlu. ñu ko daan teel ay ay kurus Tyson du ko fàtt du ma ko fàtte mukk moo ko Mor Fadam Gambi. suñ paay ah, ay salaatul faatiha lañ tas ci digg kër yi. ay salaatul fatiha bu mujj bi noonu bi mu demee ba ba ba ba bàyyi loolu rek gis leneen. Hmm. mais gàllaaju foqati maanaam ñaari mbër yu nekk ci digg géew. foqati nga foqati ndam li jox ko diw loolu am na. bu baax. nuñ koy defee. ah man li ma ciy def danaa koy def ci bopp tan li mooy bopp tan. laa ilaaha lii mooy bopp tan li may def danaa ko def ci bopp tan. Hmm. mooy mbër mi ñëw bu dugg ci géew bi nga fexe lii nii. di ko wàq ci tànk bi. wàqe nii ci tànk bi juróom-ñaari yoon. dama koy gis léegi boo ko wàqee ci tànk bi juróom mm-hmm. boo koy wàqee dangay ngay ut këyit wàqe ko jël suuf suuf. Mm-hmm. fekk dañ la am saafara buñ lay jox nga teg ko ci pool. Mm-hmm. boyal ba mu boy ngay saaf suuf si kooku tànk yi day lox ci digg géew ku mën tànk yi day lox du mën a mën a taxaw bu baax am na tur yoo xam ne it boo ko jàngee. ay jat yoo xam ne boo ko jàngee maam boo am boo naroon am doole nit danga am doole fukki fukki fukki waxambaane ak juróom-benn maanaam koo yëkkati comme xob. Mm-hmm. yooyu sax dañ ko daan def dana wax benn baat kii wax benn baat kii benn baat sa baaraam sànq lañ bi ngeen jàpp ci tuba ñeenti di taxaw kenn ku ne wax baat bi rek ngeen yëkkati ko mu jóg. yooyu yooyu xam-xam yooyu bëri na fi am na fi. Mm-hmm. mais ñàkk dem fi nga war a ñàkk dem rek la loolu kese la. ñu ñëw ci combat yi nga xam ne jot naa taxaw ñu gis mbër yi fi mu toll nii actuellement benn mbër bu jël ay 4 avance cinq avance fi mu toll nii loolu la ñu bëgg parce que gis nañ ko mel ni Balla Gaye 2 actuellement jël na ñaari avance jël na avance Bombardier jël na avance Boy Niang gis nañ ku mel ni euh, Boy Niang jël na ñaari avance Tapha ak Balla Gaye 2 Bombardier ñu ngi koy wutal yeneen avance avance yooyu yëpp ñu jël ban gis-gis nga ci am yow en tant que ki nga xamante ni ñaankat nga est-ce que loolu dina yomb mbër mi di préparer ñaari combat wala day préparer benn jóge fa dem ci keneen. ah loolu nag moom xamu ci lu bari. Hmm. waaw ay mbër mi jël na avance bi ak jël na avance bële moom li ma xam daal mooy sama xam-xam bi ngeen may laaj waaye mbër mu jël avance moom. Hmm. ah xanaa bëree ji nu mu koy waajee day day. Ah, mystique bi maanaam ñaan gi day ñaan ci Bombardier ñaan ci Boy Niang wala day ñaan ci kenn ba pare su paree. dellu loolu la xaw ma ko diw ñëw ne ma ñaanal ma sama digganteeg diw wala ñaanal ma sama digganteeg diw man loolu laa ci xam mm-hmm. waaw maa ngi bëri diw jël naa avance am ñaan ma ci yàlla accès gu ma ci diw su ma paree ci diw danaa ñëw ci diw mm-hmm. lii laa xam man xaw ma leneen nag waaye Kanta nag ni muy préparé loolu moom man du ma du ma mbër te du ma du aw ma mbokki aw ma mbokki mbër ndeysaan ñoom la ñuy préparé moom loolu ñoom ñoo ko xam mm-hmm. ñun liñ seq ak ñoom parce que nekkuluñ ci mbër dëgg la dañ ñoo laaj rek ñu tontu liñ xam nekkuluñ ci mbër ki fi nekkal mooy ki am soxla ñëw dëgg la da nga wax bi mhm. ki am soxla ñëw moom lañ fi nekkal ak ku mën a doon nag boo ñëwee xam-xam yi fi maam yi bàyyi mhm. ñu am ko incha allah danañ la ko defal danañ la ko jox xam-xam yooyu moom lu ñuy lu ñu lay jox la mhm. te looy gis la te luy am la te lu ñuy garanti la moom xam nañ ko waaw garanti nag damay dégg ñu ne yàlla yàlla rek mooy mooy mooy mooy def mu am mooy nangam sawa yow ñaa dañoo dof nit dana lay tooñ sax nga def ko loo xam ne fanaan du jeex mu dem yoon. sëñ bi gàllaaj dina dina primé parce que garab danga koy jënd ci pharmacie ba mu primé. Mhm. gàllaaj ñaata at la war a def pour primé boo xam gàllaaj dina primé. Hmm. gàllaaj buy primé de man maa ngi ko sotti teg. gàllaaj kon du yàqu eh, gi gàllaaj bi toj na. yàqu na baaxut toj am. périmé hmm. maanaam biñ ko maanaam comme ñu jox la ay ñaan yoo xam ne moom gàllaaj ba lay ah non loolu ay jat lay doon du gàllaaj lu alxuraan lu jógee ci mu amul périmé du périmé mukk mukk alxuraan lu jógee ci moom amul périmé toj lay am toj mooy ñu ne la dafay bañ sobee nga dem laal sobe mu toj hmm. toj mooy ñu ne la day bañ njaaloo nga dem njaaloo mu toj hmm. waaye périmé moom alxuraan du ko mës a def ba ilal abët lii périmé mooy ay jat hmm. ay jalang ay xam-xam bu ñuul ay nangam ay nangam yooyu mooy yooyu mooy yooyu mais alxuraan moom du mës a périmé parce que alxuraan alxuraan mooy mooy mooy lépp du périmé mukk te loo loo ci defal nit mu jaar yoon da koy gis te da cay sax dàkk alxuraan rek man loolu. Mhm. loo ci defal nit da koy gis te da cay sax. jërëjëf seex bi maa ngi lay siyaar bu baax di di kontaan ci sa disponibilité di la jëfal bu baax a baax a baax. mbaa kay ñi ngi delloo ñi ngi delloo nuyoo bu baax di la ziar yow Baye Jili di ziar Bachir. Mhm. di ziar mbooleem ñi fi ñëw. Mhm. waaye di ziar mbooleem senegal yi ñu safoo di seetaan. ndax réew mu naqadee mucc lañ nekk. réew moo xam ne ku wax loo xam ñu ne xamoo mm-hmm. ku noppi ñu ne lu tax mu noppi mm-hmm. ku solo ñu ne dafay wanewu mm-hmm. ku ñàkk solo ñu ne dafa bañ boppam ku ku njool mu ne day yuqoolu ku gàtt ñu ne xool ko dafa maase suuf si kenn xamul réew muñ li sama waajur Oustaz Adi di wax rek mu ne def li dëppook charia te teg sa tànk li dëppook li dëppook mbind mag ñi ku ko def doo jéng doo daan waaye booy def wax joo dégg tontu jëf du ñuy jëf doo ko fekke mm-hmm. lii la amoon lu may wax beneen bi ci topp it mooy képp ku aajoom narta faju mm-hmm. yàlla boo ma xam yàlla boo mm-hmm. jëflanteeg man yaa rabbi képp ku sa aajo nar a faju bul xaar sax ma lay wax ñëwal yàlla yàlla na la yàlla yënkinal ba nga taal sa connexion rek dajeeg man direct ñëw jëflanteeg man incha allah